léegi amoo loo conseillé ci euh, adduna bi ak yooyu noonu ak yii ni mu yombee nii. amul métti. ah dara bi yomb na. bu bu xëy loolu kenn dàqaloo ba pare environnement bi dafa nice. beneen la da laal sa may yam. ah fii mooy tànganaa sopp na Hah? ah nga ñëw jël sa taan yi teew na ma am envie wax loola ah looy wax sa lekk ñaaw na. yow mii kay laay filmé yow mii. waaw. waaye ngay lekk si may lekk nga ah yow da ngaa lekk si. non dama laal pombiteer te ca kay ak man nga am man pour man yi ni bëggoo ko pour man fàtte nga ko yii nii non non man la may indi problème sama àdduna ay classe ay luxe man yooyu daf man yooyu daf def problème yooyu daf ma fi nekk sama vie wala wut bi la wut bi laal may nga dugg ci tunnel yi laal may nga par place dem stade léegi kon euh, Samuel Sénégal bii di ñëw di nga dem. mais tu as dëkk. daan nga dem mais léegi xam nga yow da gën a xat mooy li lay wax da liggéey lu metti après lekkee sa xaalis ndànk. <laughs> léegi looy tàggoo. waaye <laughs>